mbënd mi dafa bari ay njeexital ci dundinu askan wi ci wàllu koom bi wàllu aalam gi loolee nag sonal na bu baax a baax réewu senegal ngir mën a fexe jàppale askan wi état dal dinay amal ay projet ak i programme yow xam ne réew mi yëpp la ko jagleel fukki fan ak juróom ñaar ci weeru janvier atum 2023 campagne waajal nawet nga xam ne ci ñetti pàcc lañu ko def door na nu ko ca Touba. bu njëkk mooy mobilisation des communautés ndax fépp foo gis ci àdduna bi su yu mel amee catastrophe wala askan wi njëkk a ñaareel bi mooy collectivité territoriale ñu ne maire yi dañoo war a jóg taxaw taxawal ay plan de contingence mooy waajal sa bopp fexe ba nga xam ne ni bu taw jawee taw métti tawee di nga am ndox su ma amee cinquante millimètres tant de points laay loolu amee lan lañ war a jël comme mesure ñu anticiper si beneen bu mujj mooy suivi des projets et programmes de l' en matière de gestion des eaux pluviales mooy tey assainissement at bu yàlla sàkk ay quartiers yu bëree bari ndox da leen di sonal ay bés yu bëri wala sax ay ayu bés waaye yile projet dina tax tax nañu amal ay réalisation yoo xam ne wàññi na bu baax a baax inondation ci yooyu les zones tey ku ne xam ne ne Dalifort mais amatul inondation yi mu doon am kuy wax dëgg di nga gis ne foofu am na lu fa état bi def état bi am na impact Médina Gounass na mu meloon ci wàllu inondation melatul noonu Wakhinane Nimzatt na mu meloon ci inondation melatul noonu Djiddah Thiaroye Kao ni mu meloon ci inondation melatul noonu loolu lañuy bëgg muy law ndax ñëpp gis nañ ne épicentre inondation jóge na si département xëy na sax puusoon ba ci li nga xam mooy département de Kër Massar en mais fi taawoon amoon ndox mu jéggi dawe en 2020 gis nañ ne wàññeeku na. jëriñ bi nekk ca jëriñ bi ñu dénk wàllu ndox ak assainissement xam la na ne xam na ne mënuñu fexe ba inondation jeex ci Sénégal gi yëpp waaye plan bi dina tax mu am ay njeexital yu am solo ngir ñu mën a dëppoog coppite yi am ci wàllu jaww ji bi nga xam ne yi nga xam ne mooy tax Sénégal di am ay ay taw yu baree bari